waylaayo <laughs> yéen amu leen commencé depuis sept heures commencé cinquante sept. wayla wayla waylaayo. man yéen jaaxal sax. wayla wayla man yéen amu sax jom. wayla wayla waylaayo. ngeen waroon depuis sept ay ba huit heures ngeen di commencé. wayla wayla wayla ngeen bëgg a nax téléspectateurs yi di leen neexal. wayla wayla wayla alors que ñoom yeewu nañu depuis fajar di xaar. wayla wayla wayla wayla mais yàlla nañu yàlla musal ci mbotaan. wayla wayla wayla yo. <laughs> Eh, eh, li doon nañu wax dëgg la <laughs> ah ñoo doon wolu mbotaan mbotaan ñëw na ba xaw a mbot. Ah. <laughs> <laughs> merci d'être avec nous ñu ngi jéggalu ah ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax on devait commencer normalement comme d'habitude à te xam naa ni ngi nekkoon au rendez enfin euh, yéen a ngi nekkoon ci seen kanamu téléviseur di xaar euh, mbotaan la nag moo tax chaque jour ñu naan yàlla yàlla musal ci ndogaan ak euh, mbotaan waaw mbotaan nag xam nga xeetu mbot la te buñ ci yàlla musalee dëgg-dëgg ñu ñu waaye sant yàlla euh, ñu ngi nii ak yéen euh, meroon nañu sax ba bëggoon a ñibbi waat ah. mais nous sommes là depuis 5 heures du matin franchement ah. voilà euh, ñoo sangoondoo sax. ñun ñëpp. <laughs> <laughs> depuis 5 heures ñoo ngi fi toog di xaar rien que pour euh, ngeen mun a jàkkaarloo. ah oui Pape Cheikh en plus moog ex dañoo tristoon wala leen gisoon ban jaaxle lañu ko. wala du voir. <laughs> dama leen mujjee yërëm sax di leen c'est grave. voilà alors ce qu'on va faire tout de suite on va enchaîner avec les titres euh, de ce qui va être développé euh, dans le premier journal euh, je rappelle qu'on est jeudi euh, Euh, avril 2014 euh, demain mooy fêtu indépendance bu Sénégal on a beau chercher ay tenues vert jaune rouge on n'a pas trouvé euh, donc ku nekk jël li mu mën quoi donc j'ai du un peu de rouge ah tuuti jaune raxnaa raxnaa vert quand même pour euh, pour suba pour xaw a dem suba bon étoile bi micro bi la <laughs> fait remplacer <laughs> voilà bonjour Léa depuis ce matin tu es là elle faisait mais pourquoi on fait pas l'émission de démarrage cette heure <laughs> ma ne ko est-ce que tu connais Mbotane non je connais pas Mbotane c'est quoi Mbotane ma ne ko bon je pourrais pas t'expliquer ça mais bon euh, ñu ngi nii en tout cas qu'est-ce qui sera donc développé dans le premier journal euh, enfin oui oui au premier journal bi passé na sax. oui mais attends attends t'inquiète pas tout va bien se passer on va trouver une solution. pour euh, pour que les téléspectateurs et toutes les informations on se calme. c'est parti pour les titres <laughs> affaire Fodé Ndiaye les jeunes manifestants qui étaient montés au créneau pour fustiger la détention de leurs camarades présumés coupables du meurtre meurtre du policier ont été sanctionnés. Ils devront s'acquitter d'une amende de 50 000 francs CFA pour participation à un rassemblement non autorisé. Kaolac, doté d'une nouvelle unité de dialyse et d'un centre de réinsertion sociale pour les malades souffrant de troubles mentaux, une inauguration qui s'est déroulée en présence du Premier ministre et du ministre de la Santé. Préparation du 4 avril, comme tu le disais Papcher, la Grande Muette dévoile son programme. La DIRPA faisait face à la presse ce mercredi, compte rendu dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, ça arrive bientôt. Euh, tout ça voilà l'observateur bu tey bi xam naa sax ni xëy ngeen bu yàgg bu cëndi ko mais l'observateur bu tey baa ngi nii actuellement euh, mu ngi disponible ah gis ngeen ko ñu def titre Euh, ca kaw a kaw ca pegg bële site ak euh, Pape Morlo ak Amaneex ak Moussa indépendance ca ca ca voilà coopération l'envoi de 2000 sages-femmes euh, au au Qatar Sokul Palais mu ngoog waxtaan wax détaillé nañu ko ci l'observateur bu tey bi infanticide elle l'écope de six mois ferme Diaba Fall tue son bébé en obstruant son nez et sa bouche par des sachets plastiques. mauvaise nouvelle. très mauvaise nouvelle. Mhm. très très très mauvaise nouvelle. Ah. corne. voilà et puis et puis tubarkal le président itam mu ngi ci couverture euh, enfin mu ngi ci une euh, l'observateur bu tey bi président. ah président <laughs> président son excellence. Mhm. président Youssou Ndour waaw sama waaj ji <laughs> ah xoolal boobu toogaay ah, kon neexoon na ah Diallo Waly fay na ndeer waaw fay nga ndeer ah, kon ma dolli wala ma bàyyi ba beneen <laughs> dolli rek ma bàyyi ba ci kanam ah. <laughs> jotu ñoo egg voilà alors comme tous les matins mais comme chaque jeudi euh, tey bisu santé la bisu wérgu yaram la euh, dañ ko waxtaane bu ca kanamee bon coin ak euh, bon plan Exidex lañ ci àndal chaque jour alors tey Pape Cheikh dañ leen di àndil benn surprise lay wax parce que comme on dit tout le temps damay andi wax damay ñëw ne lii la tey je ne dis rien mhm. nii rek toog leen seen kër mhm. di ngeen yéemu est yow ndax di nga dara sax tey <laughs> intelligence. yaa ngi fi ma. <laughs> yow ñii ngay tuur lëndëm sax. ñii dara safatu leen ñii di seetaan ma ne ñii gis nañu ci télé luy dund gis fi luy dee. ñii mënoo leen mënoo leen kii tuur lëndëm. waxal wax ji rek. loo indi ex. sama élément laa xamul. <laughs> très bien bravo. na ma ni et euh, bi ñu am réunion de rédaction ak émission bi. Euh, Exidex dafa waxoon ni euh, nee na dafa waxoon dañuy dina indi ay cuubkat. waaw kay cuub xam <laughs> rappelez-vous démb réunion de rédaction <laughs> Exidex ne dina dem seeti cuubkat yi. tey tu viens fàtte yëfam waaye. mbotaan bee ko jàpp. loolu comme ni nga ko waxee koroon naa nag dama doon mbot de dama loon mbot de <laughs> moo tax fi woon ma mbot leen mais c'est que éléments yi bari donc xaw ma nag cuub la wala tàpp la xaw ma dama ci bal la donc tey ah, peinture peinture ah peinture ou peinture ah teinture teinture mm-hmm. peinture ah teinture d'accord waaw ah, tey teinture la tey teinture la donc euh, muy métier bu yàgg nag uh-huh. mais bàyyi jógewu fi uh-huh. Mali lañ la bàyyeekoo uh-huh. parce que xam ne ne ñoom ñooy cuub mm-hmm. ah ñëw Sénégal nag mais tàpp amoon na fi tàpp ak teinture ñaar yu métier yu wujte la yu bokkul mm. ñu bëri dañ foog ne ah, tàpp ñuy cuub ñoo tàpp déedéet ki cuub day pare jox ñiy tàpp ah. waaw tàppkat yi xeetu passé la ñuy def waaw kay waaw la mais ah. tàpp bu fooree lool day tepp yére kay waaw xeetu passé la <laughs> xam nga dañ koy dóor ah xam nga euh, <laughs> genre tàpparka la. genre tàpparka dañ koy jëfee waaw gos kii dañ ko mos a tàpp bu bugguma ko woon fóot parce que je me dama koy yàq waaw <laughs> ma yóbbu ko jox ko jubkat yi pour ñu yére bi dafa ñëw boo defee nii mu topp la nañ <laughs> ko tàpp ba rek tissu bi en fait ñoom basin lañ ko teg ndekete wax la ah, oh wax bu ñu tàpp ko tàpp oh. ma may la man la woon yóbbu ñu cuub ko fekk dama doon redoubler waaw comme boo for ma woon mën na damay redoubler quoi ah. mhm. jël sama benn yor tabaski cuub ko ko pare mais xam nga dañ koy tàpp ba waaw pour mu tàkk xam nga léegi boo koy sol da nga koy xolli nii waaw ci xolli ba appareil ci yére bi de boo <laughs> jàppee <laughs> jàpp bi daal lépp ñu daal <laughs> kon yow it yàgg euh, ñàkkum yére yàgg naa ak yow de man du ma jooy mukk si mbubu tabaski bu ñëwee du ma tiit. Mm, mm. man du ma non loolu il faut il faut que Mado indil ñu ci ay astuces. tu n'es pas le seul ah moi ak plein de gens qui regardent. Euh, ba ci jigéen ñaa ah, bëri na ci ñoo xamante ni dañ lay wax ni man bëriwu ma yére olof man aw ma yére olof yu bëri. ah pourquoi alors que lépp fii la gën a yomb. absolument peut-être di nga ñu ci indil ay. Euh, ay ay ay gëstu très prochainement. <laughs> Euh, bijou grâce à toi dañuy tukki tukki bu gaaw te du nu buuse maître. voilà Pape Cheikh jeudi dernier man xam naa sama élément melu ma ni yow. <laughs> <laughs> te pourtant j'ai pensé à un moment comme Pape Cheikh dafa mun tooñ dem naa wax la ba nga wax développé mu ne la poisson d'avril <laughs> je te jure j'y pensais. poisson d'avril imaginer moo xoon ko te du loolu waaw. kon dañuy dañuy eh, fii la ñuy waxoon kon ci d' avril. Eh, dañu leen bëggoon poisson d' avril la ñu bëggoon ngeen xalaat di émission bi du am tey voilà. <laughs> waaw voilà. poisson d' euh, benn copine am euh, lay lay àndal tout le temps donc premier avril mu envoyé euh, message copain copinam maanaam faru copinam genre daf ko nopp quoi ndekete copine bi ak far bi ñoo toog quoi rek far bi woon xale bu jigéen bi message bi xale bu jigéen bi woo copine bi ne ko tax nga envoyé ko message bi ne ko non poisson d' avril la woon. poisson d' la woon. bu am bon dos. ko sauvé de. ah waaw tombé de ko sauvé. <laughs> voilà poisson d'avril la. non boobu moom duma la bàyyi mu jàll. dinañ ah. ko viande d'avril. moo wàññi ah <laughs> non non ku mu ko defoon jàllee noonu day. kon eh, da ngaa fiir nii ah. facile day facile. non non non pas du tout. tubaab du fiir de bijou. <laughs> ñu wax ci ñu wax ci sama élément yow. waaw vas-y vas-y vas-y ci plateau bi dama lay mbëkk léegi. donc Pape Cheikh jeudi dernier je vous avais promis que dinaa leen indil nit ki nga xamante ne moom moo accro au selfie ba naroon xaru. ba ñu yóbbu ko cure de désintoxication. ndax selfie ndax selfie. selfie parce que nee na defagul bu baax donc photo mi ngi ci kanam dinañ ci wax et euh, réseaux sociaux yi nu ñu amee doole parce que benn xale boo xam ne dafa cancéroon bëggoon gis Nicki Minaj et grâce à benn hashtag mhm. la la ko gisee dinañ ci ñëwaat tout bi ma leen doon andil muy na tey ñëw na tey Ceki xam ngeen euh, la poupée oui oui la poupée tu sais que y avait un film ancien mais ils ont refait un autre pour pour euh, def film bi mhm. mais laisse tomber li ñu def ci mbedd minute graaw eh na. on aura tout <laughs> sera pour tout à l'heure ak mm. euh, bijou euh, mado euh, truc astuce ak euh, bien-être. exact Pape Cheikh di nuyu mbokk téléspectateurs yi di leen di nuyu yow mais Pape tey damaa dem fële laa dem. Mm. Euh, lan lañ doon wax sànq yow. yow tam na ngaa fàtte. waaye ah, itam fàtte <laughs> déedéet fàtte wala poisson <laughs> <laughs> dama leen di waaw kay raxas dama indi ay trucs et astuces. jàngal leen tey daal ma doo raxas nga bëgg a wax. tey moom damaa dugg ci ëttu nan nañ ko waxee. tëgg dawul mbaar. Mhm. diplôme yee ko fonto ah la ko tontoo Mado man sax. non Pape Cheikh c'est ma ko ah, man xam naa bu Mado xamul ak diplôme yi la ko tontoo. waaw diplôme yee ko. voilà tey daal dama indi daal ay trucs et astuces très simples parce que tout le temps nous les femmes dañu am suñu ay takkaay yoo xamante ne ay astuces nan suñu ay takkaay suñu takkaay wala suñu ay plaqué or ba nga xamante ne duñ ko ñàkk parce que la plupart day dem ba rouillé wala mu am xet nga dem nga mayee ko wala nga sànni ko mm. mais alors que mun nga ko euh, retaper waat ba mu beesaat nga xam ne dañ ko mun a utiliser diir bu yàgg voilà voilà ay astuces pour raxas ay bijoux exactement oh, ok ok ok ok <laughs> loolu loolu loolu am na solo euh, bu ca kanam alors jeudi bu jot euh, dañuy waxtaanee santé ak euh, soxna Fatou ne ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay kooku mooy bàjjenu gox. <laughs> maa ngi leen di fay di am mbégte di partager ak yéen plateau bi saa su ne. alxames bu ne. Mhm. di nuyu également ñi safo télévision Futur Média. tey euh, tey lu ñu nar a waxtaane ci santé euh, tey moom euh, jàngoroy ébola la ñuy waxtaane Ebola waa Ebola yàlla na ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal nee leen yàlla bu mu fi yegg si hmm, amiin yàlla bu mu fi yegg si waaw moom la ñuy waxtaane parce que jege nañu du lu am solo la ñu waxtaane ko parce que hmm. il faut ñu xam mesure de prévention yi pour que hmm. vraiment jàngoro ji ñu mucc ci loolu nag lañ fas yéene waxtaanee tey comme d'habitude jeudi yu ne ak li ñu indi. baax na ci de ñii di jël seen loxo yeeg biki di ko yëngalee kaasu ndekki. bu ñu mhm. paree di ko màcc nañ ko bàyyi. Pape Cheikh Diallo yaa moom wax ji. image yaa ngi fi de. ndeysaan moo tax sama ndey ja woon na ma demal rek <laughs> ku la jéem a sax yàlla dina ko <laughs> loolu la ma waxoon keroog waaye yàlla baax na xam nga bu may xooyee léeg loxo ba di ko màcc <laughs> boobu caméra yi tàkkuñu. laay les images nu mu tuddati Mawo s'il te plaît am naa ci droit ça part dans mon ventre non. non <laughs> mais mais nag baaxul parce que yooyu mun na joxe maa rek day taari en tout cas euh, tey dinañ leen expliquer kon euh, loolu ñu tuddee Ebola fan yii yëpp ñu ngi koy waxtaanee ngeen koy dégg ci euh, journaux yi di ko dégg ci rajo yi di ko dégg ci télé yi partout. Mm. ñëpp di ko waxtaanee am na ñoo xamante ni xamuñu ko dañu koy dégg rek ah. Mm. donc tey grâce ak Soxna ki Kiné dañ leen indil ay détails expliquer leen luy feebar boobu est-ce que dugg na Sénégal wala diggul siwul Sénégal est-ce que am na ay risques pour ñenn ci doomi Sénégal am ko. yow est-ce que ça n'arrive qu'aux autres loolu yëpp euh, daanu ko waxtaanee xam ngeen li ñuy bëgg euh, alxames yi mooy euh, dox ci sensibilisation li tubaab naan mais woo prévenir que guérir voilà mm-hmm. xoddee ko balaa ngaa lakkale mais woo prévenir que guérir <laughs> mais woo prévenir prévenir que guérir. de tout cas. waaye El <laughs> nga ca toolam ya toog di àndandoo ak ñun saa yu xëyee. alors on va enchaîner ak euh, Diop Diop n'est-ce pas comme euh, chaque matin euh, si vous nous rejoignez fàttaliwaat leen ni tey nous sommes dañu commencé avec beaucoup beaucoup de retard ah. voilà la xale ba naan Echiboto alors Echiboto pour dire merci beaucoup waaw Echiboto <laughs>